Ouguseyn ya xam ne sama xarit tey ndawal la ma jëndal ndawal la ma saafal wala bambara ya, yow mënoo def nang dañ laa invité rek ngay xas sama papa nag waaw ça va boo gisee lii xam ne tey lii lii du màggal lii ndawal la namatuma seeraas daa banaa ko déedéet bul bàyyi daa sama papa la daa damaa ko di invité waaw kon ndawal lu bari la ma jox hmm. buñ jugee état ah baax tey laa la <laughs> may nga de tey dimanche laa la ma may nga. tey armé laa la ma may nga de lakk di ma sën a ngi dale. lakk di ma laaj la laa laal. tey am may nga tey la ngeen laal. waaw tey loolu li ma laaw xam nga ni lii du ay caaxaan. waaw lii du ay fo de. mer na koy yàq na ma. barki yi de dibi. këb sa këb sa foo ne. beex mu dem jëndi ndawalu sarax jël ndawalu sarax jox leen ko. ndawalu sarax nga ma jox man dama ko dem guddi yëpp damaa génn. nelawul de li ma jox démb. tey moom bon dimanche la ñu wax wala bon dimanche. non bon dimanche. en tout cas. sànq tey moom ndekki validé. ndekki validé. barki yeneen bi ah. ngeen jël ma démb yóbbu ma may xaw ma lu may léegi jël seen ndaw. man naka jekk mu naan ay yàpp nag ak yàpp gi man tam. <laughs> day sëb. këpp sa yaa bon. moo bon bon. a du ko gis. dañuy bàyyi ba ndékki ba pare tey mère Nogay xat na.

baax ah. daa wóor. champion toog balaa. <laughs> waaw moom Serigne Bamba. Zé ah, mais yow yaay